man 92 la juddou legui man nak dafa am luma metti trop limay limay jël ay jëlantuy yu sew yi lay def ay jëlantuy yu sew yi gis nga man buñu tegee xaalis ni sax dina def kut ko kut ba jël ko franchement ñom nak duñu wax duñu wax te duñ ma musa laaj duñu wax duñ ma musa laaj damay jëlantu ni te man luma ma bëgg su bo ngoon jot ñoom ñu ngi ci franchement nak te luma ma bëgg instant yi suma leen ne lii laa bëgg dañ ma koy may ñom ñi may liggéeyal lu ne may nañ mako lu ne mais man dal sàcc gi dal moma metti damay jël ba paré suma jëlé ba paré na daf may metti torop daf may métti parce que damay jël soit ma jël sen téléphone bu ñu boo ne utiliser tuñ ko ma jël ko suma ko jëlé damay dem ma maye diko ko fa ma jël ni ay yéreem xam nga daf may dink ay bagage am daf ma wolu dal lepp man la koy dink daf may dink ay bagage am yenn saa ma jël ben sagam ni ma dem après ma maye ko duma ko utiliser wala ay dalam wala ay yéreem wala yenn saa yi mu teg bagage yoo xam ne da teg pour denc ko man ma ñëw jël ko ma ko jëlee après dama ko utiliser dama koy may yu ñàkk a fayda daal franchement daf ma métti damay jël ma koy regretter li may jël loolaa nag xamul lu mu bi ma ko remarqué léegi moom mu ngi bëgg a yàgg parce que léegi moom yëf yi daf ma mel nii daf may ëpp doole xaw ma nag daf may bëgg ëpp doole trop trop trop damay toog affaire ma ma métti lu lu ne ma koy xalaat lu ne ma koy xalaat mais daal mu ne noonu. en fait bi ma commencé jël sama benn kër patron sama benn kër patron bu ma njëkkoon a nekk foofu laa nekkoon foofu tamit euh, yu ñàkk fayda yi daal laa fa doon jëlantu yooyu daal laa fa doon def ay chaîne chaîne or wala seen bàgg yooyu laa fa doon jël après nag bi ma nekkee fii tam man moom yàlla daf ma may chance ku may liggéeyal ku ne daf may bëgg wóolu ma lu ne nga may may mais sama cat daal loolu la lu ngeen ma mun a ñaanalee rek te ma bàyyi ko te yàlla tax loolu lay ñaan ci barke weeru koor bi métti moom def na ma ko trop trop damay jël ba pare après dama ko regretté su ma jëlee nii ba pare ba dem mayee ko dama koy regretté ma ne waa man lii ma jël lan laa koy doyee noonu daal la fay demee. ay maa ngi sama néeg dara manqué fa matériel bu fa am sam patron moom moo ma koy maye lu ma bëgg instant yi mu defal ma ko. day jël day indi ay tissu mu may ma yëkkati téléphone may ma mais man daal lay sama cat mooy li tax may jël te ma lan moo may jëlloo lo partout loolu lay sama problème li may jël daal te ma lan moo may jëlloo franchement métti na ma trop trop trop trop man daal sama ma sañoon daal loolu daal ñun ma ci te yàlla tax loolu laay ñaan. beneen bagage bu réer dinañ xam ne man maa koy jël mais duñ ma ko laaj te duñ réaliser duñ def dara te xam nga loolu tamit loolu rek gàcce la. nit ki xam ne yaa jëlal lii ba pare te du la ko laaj du ci wax lenn franchement dafay neexul ci xol neexul neexul de man gis nga sama salaire mosul tardé su ma ne ko lii laa bëgg mu may loolu la jël bi may jël bu ma paree di ko réccu daal metti na ma trop franchement man daal solution bu may bàyyee sàcc dongu dongu laa bëgg loolu rek laa bëgg.